Touba quincaillerie général mu ngi fii ci cité Kër Damel bu dee da ngeen yittewoo lépp lu jëm ci wàllu quincaillerie yi ñëw leen fii mën ngeen leen a seeti tamit ca 84 ak ca 65 rue Ngalandou Diouf mooy ànd ak yéen ci waxtaanu ajjuma yi am fii ci Touba Aliya jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fas fàttalante tey dafa aju ci xew-xewub jamono boo xam ne eh, jullit yi ak fu ab jullit mën a nekk war na cee def njàngat bokk yi fan yii nga xam ne moo weesu tuuti dafa mel ne yàlla dafa sedd senegaal lu bari ci ay nattu moo xam muy li ñu tudde ay accident ci tali bi ci géej gi ak sax ci jaww ji ndax am na benn foofal naaw goo xam ne lee mu amub diir ba mu réeree ba fii mu ne kenn xamatu ca dara xamuñu kaw la nekk xamuñu suuf la nekk boole kook lakk yi am ci biir gox goxaan yi bis bu set yii ay nit di ca des yenn yi alal ju bare bare bare joo xam ne nit mën na ko wut yàgg ci dutu ko am di ca des ndax nit ki lu mu amu saa bu ko ñàkkee amaat leneen lay tudd leneen lay tudd rek waaye loola weesu na moo tax yu mel noonu su tegalooyee moo xam muy accident yu am ci tëli bi bis bu set daanaka néew na bis bu jàll wala guddi te déggee su ko rawatina nag géej gi kon yu mel noonu saa bu amee jullit yi war nañoo taxaw xool ba xam li xew lu mu doon ndax dogalub yàlla la wala day loo xam ne bu dee dogalub yàlla it loxob nit daf cay nekk euh, bu fekkee yu nit ñi la jaar yu nit ñooñu war nañoo xool ba xam lu mu taq loxo yi lan la taq ba waral nit ñu bari ñi di faatu ci jaare di jaare ci seeni loxo Euh, bu yàggoon nag ci xeet yi jiitu xeeti Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom yu mel ni saa bu masaan am rek aw nit ñoo def dara ndax yàlla daw leen jëlaleel dara ku ko daal ku ko def ku ko mas a def rek gis ko la daan tudd def gis moo tax ñun ñi nga xam ne yàlla suturaal lañu boole ñu boole ñu ci xeeti Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne daf ñu ubbil bunt boo xam ne lu ñu mën a nekk ci ay xat-xat bu ñu duggee ci bunt boobee bu ñu génnee rek suñu mbir mën naa jag muy bunt tuub moom lañu ubbil te tëjoo ko gaa yu bari gaa yu bari sax xamuloo leen ko woon far xamul xamuleen xamul leen woon ne leen bunt la bopp day ci nit da ca jaar di génn <coughs> moo tax xew-xew yi mel noonu su amee tegaloo tiifoo waris naa xool suñu diggante ak suñu boroom mu tudd mu tudd ay zunub walla ñu xool suñu diggante ak suñuy yi ñu digal ak yi ñu tere mu tudd ay maasi ak yi nga xam ne nite ko tëral nit ñi ñoo ko tëral maanaam boroom kàttan gu ko sañ ñenn ñi di ko tudde yoon moo ko tëral ñett mu ñett yi séq nit ki bi nga xam ne digganteem ak boroomam la ak digganteem ak digle ak tere yi ak digganteem ak yi nga xam ne saa boo ca jaaree sàkk jaar nga ci yëfu jàmbur loo xam ne moomoo ko ànd ak ñett yooyu yëpp nag ñun ñëpp xam nañu ne yàlla moom naka jekk fa mu nekkoon ma nga fa ba léegi ci jóge gu fa te du fa jóge te du fa jóge ñun kay ñëw ñëw ak dem waaye fam mu ne woon dégg di dégg di gis di xam lépp ba fii mu toll nii ma nga fa lam ñëwoon it ku ko def am jàmm euh, ma nga tef ma nga teg jàmm ja ca sotti jëf ja waaye lam na it ku ko def taseek ab safaan it ma nga teg safaan ba ca sotti loole saa bu ci nit ki génn génnewut loxoom rek daal di taseeg loola yàlla ñu ci yàlla musal moo tax ñi nga xam ne dañoo fab seen tànk teg ko ci lépp lu ñuy def ñu laaj ana lu ci yàlla santaane lu ñuy nar a bàyyi ana lu ci yàlla wax ci ku koy bàyyi fu muy jaar ñooñu saa su nekk yàlla mën na leen dimbali lu ñu wuti am ko ndax ñu ngi ci ndigalam euh, loolu la ciy firnde mooy sunu moroomi jaam yi nga xam ne euh, yàlla daf ñu fee boole indi te sédduñu lu bari loo xam ne séddu leen ko ci suñu moroomi jaam yi am na ci ñoo xam ne seen xëy ak seen gont weesu wut lu ñu def ci seen biir lekk ko naan ko duññi ko nelaw yeewu jógaat wutiwaat ko ñooñu nag bokk yi ñun la ko fi yàlla tegal ndax bis bu nit jaar sàkk ci jur goo xam ne yàlla ku ko dénk mu ne ci loxoom wala mu ne ci loxoy keneen mu fexe ba jot ca ca loxoy keneen ca anam kam ca war a jote jariñoo ko te dara du ko ca fekk te moo ne saa su ko fàttali jur googu kenn ku ci nekk daa am ay bokk yi nit ñi am yépp waaye teraanga ju suñu borom defal doomu adama la ci eh, di ko feddli saa su nekk la taxoon mu indi ko fi daf ko fee indil li mu fiy jëfandikoo lépp ba nit ki mën nay dem bay laaj suñu boroom loo xam ne jàpp ne ne amu fi te fekk mu ngi fi moo taseegut ak moom moo tax ku teg tànkam ci ndigalu suñu mi rek mooy nekk ci jàmm mooy am xel mu dal ne ci jàmm nag bi nit di jàmmante ak Sëriñ Tuubaa borom Tuubaa ni ko wolof di defe euh, naam nangam ma jàmm nga ma nangam ana diw ana diw ana diw ana diw Sëriñ Tuubaa waxoon na ci ci biir fonk loolu ne ci jàmm ak ne ci xel mu dal mooy lan ndax bi ko mbokk ma mu nuyoo jaar ci santam da ko ne sëriñ bi mbaa yaa ngi ci jàmm sëriñ bi ne ko ndax xam nga nekk ci jàmm mooy lan mu ne ko ah damay dégg ñu di ko laajante rek mu ne ko ne ci jàmm de mooy ne coow ci ndigal suñu borom yi te te dëddu ay tereem ba faaw sëriñ bi ne ko ana kooko ne ko ana sa waa kër sëñ bi ne ko sama waa kër ngay laaj mu ne ko waaw mu ne ko sama waa kër jotewoo ak ñoom dara ba di leen laaj ndekete ana waa kër sëñ bi aaya bi mu ko jàngal mooy la taqrabu zina jotewoo ak ñoom dara ba di leen laaj kooko ku yàlla yónni woon la mu war a jàngale rek na ko Seydina Jibril defe woon ne ko waa Kajoor nuyu nañu la mu ne sëriñ bi ne ko ndax waa Kajoor ñoo ne la boo demee nga nuyul ma ko mu ne ah déedéet nag damaa jóge fa cerno rekk de mu ne ko fende da ngeen ko woyofal lool tam diis kon bokk yi ñett yooyu boo ko seetoo boo ko seetloo génnut tomb bi ñuy waxtaane ba ca jëkk mooy ndax ñun ñi ngi teg ndax ñu ngi ci jàmm kooku laaj mu ne waaw te bu xamoon luy nekk ci jàmm kii ko koy laaj sax mën na bañ a moom mën na ko bañ a tal ba di ko laaj ana sa waa kër it ndekete yow nit ñaa ngi def ay bàkkaar te duñ ko bàyyi xal néew na kuy nuyoog nit te doo ko ne ana sa waa laaj ko sax jar ci seen tur laaj laaj say soxna laaj say doom te yoonam nekku ci ñoom laaj sa bàjjan ak sa tànta te yoonam nekku ci ñoom ndekete te loola ñu ngi koy bind fi barab waaye fen moom du dara moom ci jamono ji bis bu set ana di nga dégg diw mu ne nuyu na la fan yaa doon na ma woo te araam am lu doy waar loo xam ne ci fen la ku fen ba gëm ne moom fenkat la ñi muy àndal ñëpp dañuy fen te fen ci bokk bakkar yu mag yi la bokk moom njaaloo moomu sëriñ bi tudd kooku dafa wax ne day waxtaan ak genn kilifa gu ndaw ba yàgg kilifa gu ndaw gi ne astaxfirullah demewut noonu kat nangam la demee mu ne yéen di yéen a fi gën nekkee yéen ñu toll ni yéen ay at ñu ngi wax di bàyyi xel yàlla daal ne man day ak diw ak diw ñin ñi faral di ànd day léeg-léeg ñuy seereelante loo xam ne kenn xamut li waa ji wax sax da dégg sax ñu naan diw du bàyyi ma fen ah kay dañuy maslaa moo tax da koy bàyyi ma fen ba doyal su ëllëgee bu ne mu seere ko moom itam moo tax yu sew balaa jàmm am am xel di dal faw nit ñi dellusiwaat teg seen tànk fi ñu ko war a teg tey bàyyi xel sew sewaan yooyu ndax sew sewaan yooyu ni mel ci jàmm yàlla mi ngi mel ne ku sol mbubb moo xam ne dañ ko suub moo xam muy baxa walla palmaan walla rombal mbànd eh, bu rombee nit mu fab as odd sawel tiisal ca ci një ci saase du du ne ah amul solo de du ko gis waaye su doxee tuuti dana gis mu tàmbalee def ay taas taas ay ay tomb tomb yu weex yoo xam ne audiovisuel moo ko ci def bu dee asib mën naa yeex feeñ kañ lay feeñ mooy bu ñu koy fóot saa bu ñu ne fete fete benn bën bën bën ñu indil ko pour mi mu tàlli lool paase ko ba mu baax waaye bu xoolee gis bën bën yu ndaw yi mu ne ka doon paase moo ko ci def te déedéet acide moo ko ci def te jëkku ko woon noonu la rëcc rëcc yi mel noonu di def ci jaamu yàlla nit ñi ba su musiba yat wàcc yàlla day sopp day bàyyi noonu rek yàlla na fi yam moo tax wépp xeet woo xam ne dañoo fob ndigali suñu borom yi jàppe ko tere suñu boroom far lu mu ne na la ñu ne du na nii moo gën a gaaw nii moo gën a noppale euh, buñ nee sunna ñu ne loolu ay caaxaan rek la moom laa xaw wala yasubillah Euh, di sàkk yeneen yoon yoo xam ne mu gën a gaaw yàlla da di bàyyi ñu jaar ci yoon woowee ba fuy fii rek moo cay tege ndax léeg-léeg léeg nit topp ci àll bi aw yoon woo xam day neex ba mu yàgg ndekete fa mu jëmoon ñu fa nawetoon rek ñoo fa nekkoon waaye ba nawet bi jeexee dañoo takk seeni bagage ñibbi ndànd fay fay des fa loolu la ñuy tudd fay fay moo tax nit ñi suñ demee ba ak mooy yàlla nëbbatuñ ko kenn nëbbatu ko yàlla mënu si ko nëbb waaye dañ daanañ ko nëbb nit ñi bañ diw yëg ko waxuma la di la gis waaye léegi dañuy woote foo xam ne mooy yàlla kese fa nekk ndax yii sëriñ bi waxtaane ak mbokk moom doon jàmmanteek moom sañ doon jàngal tam ko doon jàngale mu di ko jàngal muy wan nit ñi saa su nekk ñuy dégg ñuy woote foo xam ne dalay wóor ne ku fa dem moom mooy yàlla mën na ko faa fekk ndax bu dee laaj sa mbokkum deret wala mbokkum dëkkandoo laaj sa waa kër bàkkaar la su boobaa nuyoonteeg soxna si jàmbur su la nuyoo leel nga doqoo ak moom nag daqoo boo ko déggee mooy alal akolaat mu teg ab lexam fii teg ko fee te soxna soxnaam boroom këram la ànd yow itam nga présenté ko sa soxna mu def ak moom noona mu mel ne dara xewut ñu bokk toog ñoom ñaar kuñ ci tudd ci ay caaxaan bu jógee mu jóg dimbale ko ñu ñu jàppalante ba mu yàgg lool ba bët set boole ko fay xaalis bu bari loolu loolu loolu nëbbatuñ kenn nëbbatu bari na li ñuy bëgg a wax ñëpp ñu baree ko xam moo tax ca baawoon euh, suñu borom tegoon na ab nattu suñu maam ju ñuy wax si Seydina Adama alayhi salaam ndax yàlla dane woon déedéet bul jege barab sàngam waxu waxu ko bu fa dem laa taqraba hadihi shajara bu leen ko jege jege nag ak garab ker ga bàyyi ker ga da cay bokk lépp lu laal da cay bokk moo xam ni keroog suba ak ni muy gudde wala keroog ak ni muy gudde ndax ku toog ci ker gi léegi tey xelam nekk ci téen bu dee jaa jaa jaaxaan téen gis ni muy jaayoo meññat mi la muy mujj def rek mooy ne teppit ab doom xool xool kenn gisu ko mu ne ko pelam sax moo tax ca la ko suñu borom génnee woon aljanna moo ne ci ay bakkaar itam eh, te moo ne booba bakkaar nii mu garaawee garaawee gu ko woon booba yàlla dana woon bul jege garab gi rek mu jege ko ca la musiba amee tàngoor wi ñu nekk loolu moo ñu ko teg laal garab ga moo ñu ko teg jege garab ga moo ñu ko teg xuma laa dagg ca lekk nag waaye am na itam musiba mu daloon aw xeetul àdduna bépp daanaka yaatu woon na lool ba fu nit nekkoon yëgoon nga ko ña ca mucc mooy ya gëmoon yàlla te teg seen tànk fa ko yàlla teglu amoon na jamono sayidna nuuhin alayhi salaam nga xam ne dana yàlla nee na ñu ne doo ko fi waxe kaay leen bu ñu ñëwee ne ko loo ñuy doyee mu ne yàlla ne te ngeen a bàyyi lii te def leen ñu ne ah ki dañuy fonto ñun amuñ jotam ñenn ñu naan toogal rek xar gi dafa bi dafa yàgg maa ngi dem liggéeyi rek soo fa jógee nett li ma la fa wax bis yàlla digal ko mu yett gaal xamul nu gaal di mel mu ne ko soo rayee ganaar boo ko jëfandikoo ba noppi dënnam boobu noonu mel noonu la gaal di mel xisa bu gudd la waaye fa mu mujj daal mooy ku nangu na ñëw yeeg yàlla musal ko ñii nangu ye ñenn ña gàntu ña gàntu woon doomam jum jur ci la bokk doy boppam ba yàlla dogalee ci dogalam ba jox ndigal asamaan si muy taw mu ne suuf day am ndox ñuy gas teen xam nañ ci dara ak forage ne suuf génneel li nga yor asamaan wàcceel li nga yor ñu tase àdduna di dim ndox mu xool doom ji mu ne ci beneen côté côté bi nga xam ne mooy ñene ñene yàlla ay caaxaan la naan yàlla te ngaa musal sama doom jee ndax ci sama waa la bokk yàlla ne ko déedéet bokkul ci sa waa lii boole li la booleeg nit ñi bañ doon sa waa mooy pas-pas bi ngeen bokk ak teg gi ngeen nangoo teg seen tànk ci ndigalu suñu borom euh, rab inna bni min ahli yàlla ne ko innahu laysa min ahlik waaye amoon na it jamonoy sayidina Muusa ak Firawn Eh, ba ko Seydina Muusa ne bàyyil ñi nga jàpp ay jaam ja nit ñëpp yàlla leen moom kenn amu fi ab jaam ku dul yàlla mu ne ko déedéet maa leen moom yàlla daal di wàcce mbas mu metti ak musiba mu metti moo xam ne ku dul ku gëmul Seydina Muusa rek yëg nga ko am na fa alxuraan di waxe ne fa arsalna alayhim tuufaana والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين tuufaan boo ko déggee moom la suñ jamono tuddee mbënn déedéet ñun suñ jamono li am mooy fayadaan waaye mbënn mooy suuf asamaan si di wàccam ndox suuf si di génne am ndox lañ bayoon lépp yàqu seen dëkkuwaay yépp yàqu ñu daal di defarawaat ndax nguur a yoroon réew ma nguur gu am doole buur boo xam ne demoon na ba naan maa alimtu lakum min ilahin gayri ana rabbukumul ahla euh, Sidina Muusa tàllal loxo yàlla ne ko waa jaa ngi bëgg a jàkkaar de li ñuy nett li ci diggante suñu fa Faliilu Mbàkke ak keneen ci jamono saa buy xëyee ne ko sa waaja de falaat nañ ko nangam. mu ne ah portemanteau de balaa daanu dafa diis portemanteau dëgg balaa mën a daanu dafa diis gan ak yére waaye Seydina Moussa ba mu tàllee loxoom yàlla ne ko sa waaja waajaa ngi bëgg a jekkaat réew mépp tabaxaat nañ ko mbay mépp tàmbaliwaat naa baax yàlla yabal na mu yabale woon tuufaan muy ndox moo xam ne xamuñu fi mu bàyyi ko mu yabal joraat boo ko déggee mooy ay njéeréer njéeréer yi ñëw ci àll bi lekk garab yi ñuy lekk ak yi ñu lekk lépp ak liñ bawoon ak lañu bayut lépp ba kenn amatul fu mu jëm doyut mu yónnee leen kenn ku ci koo ci gis mu ngi wokkutu ndax teeñ yu bari teeñ alxummal bañ génnee si loola ndax dañoo mënoon a faj ci misaal defar ay pompe ak i vaccination yoo xam ne day rey teeñ yi bu doon jamonoy tey ba tàmbaliwaat a seqalikuwaat Seydina Muusa ne wa yàlla waaja kama doon xeexal mi ngi mi ngi defarwaat suñu boroom ne ko bàyyil rek bokk yi ay mbott la leen yabal mbott yoo xam ne dañuy toll ne ay euh, bunaat mbott yu toll ne ay bunaat la la fa yabal ak seeni rakk ak seeni jarbaat kenn ku ci masal bu nekk am na ci nu waaye mën a toll rek bu gi bu ubbee néegam buy teg tànkam bu bu ubbee néegam di tëdd du gis dara waaye bu bët seetee wala guddi jot mu bëgg a dem tuuri ndox fu mu teg tànkam muy mbott te daa am ñoo xam ne ragaloon mbott muy natt bu métti boo xam ne fu fu mu teg tànkam rek defe ne jàmm am na fa ndek mbott ne fa polet génn bañ génnee ca loola yàlla yabalal leen lu waaye jël ba di ko bëgg naan mu soppali ko deret yàlla nag loolu lépp ayat mufassalaat la waaye taxulee na wàññiku bis nag ñu ne Moussa kon génnal dëkk bi Moussa alayhi salaam te gane àdduna ak Seydina Moussa moom xissa bu gudd la waaye euh, féete ak suñu borom sax ci ay ndigalam rek moo mooy li wér mooy li dal lom xel Seydina Moussa bi mu gënee add àdduna daa fekk ñu ñu génn ñu décrété ne ku gënee àdduna bu dee góor nañ ko rey ndax xamkat yi xamal nañ buur ne ko ki lay folli léegi tey mu jut waaye ba ko suñu borom nammee ba mu judd gane àdduna dafa digal way juróom bu jigéen nekk ko dugal ko ci pañe sànni ko ci ndox mi mu dem waaye fekk am na waajtaay jur doom ni mettee ak ya ko jiitu ñun la tax degal ci pañe sànni ci ndox mi mu dem mu jëfe ndigal euh, liir bay dox ba te ba agsi kër buur buur ne leelu leeri dox la mu ñu jël ko ci dax gi mu ne ab xale bu góor la mu ne xale bu góor so soxnaam ku gëmoon yàlla la yàlla nga joxe misaal ci soxna Seydina Luutin alayhi ak soxna Firawna Luutin ab yonent la soxnaam moo daan jiite la doon bañ waaye Firawna weesu na doonub yéefar ndax yàlla la doon diir mbagg soxnaam doon ko gëm yàlla te yàlla mosu koo may doom mu ne bu ko rey may ma ko walaka allaa taqtulu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan yàlla ne wahum laa yash'uruun yëguñu Seydina Muusa moomu bi mu tolloo ci mën a toog na di ko teg ci penkam di tiitaru naan am na doom ci góor saa bu jàppee sikkimu na bi na def loo xam ne ñépp koy dégg su waxee mu weddi ko su waxee loo xam dafa jëm ci yàlla bu dul dëgg mu weddi ko ci saa si moo ko taxoon a dotam Seydina Muusa daa dotamoon صمنان وأرسل فأصي إلى هارون وهذا وهذا هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا mooy aw làmmiñam daa seetutoon ndax Firawna da ko mas a teg nattu bu metti li muy def lu mu wax mu weddi ko te la muy wax moom lay mooy gën a neex a dégg daa tàngal aw xal ba mu tàng bés mu ne ko ŋaal mu defee Sidna Musaa doon toll tolluwaayab xale nga tàngal la mu jox ko ko mu sex mu lekk làmmiñ waaye bokk yi ku jàng suratul qasas dana leer ci moom natlu alayka min nabai muusa wa firawna bilxaq li qawmin yuminuun inna firawna ala fi l ardi wa jaala ahlaha chiyan ba xesab sayidna muusa jàll jeex waaye bis ba ko yàlla ne génnal dëkk bi sa mbooloo mu jëfe ndigal xamul fu mu jëm génnal rek mu génn firaw naa nga tëdd di nelaw yàlla di nelaw ku dem banaan mooy yàlla di nelaw yëgut bi Seydina Muusa di ñëw ba ci géej gi Bahrul Ahmar firaw na di ko dab nit ñi tàmbali ko yàpp naa ko yàlla ñëwoon génnal de ñu ngi nii rek ndox maa ngi nii léegi seetal noo ñu def mun yàlla la ñëw ñu ne ko yàlla man fii ko géej ko yàlla mënu ci dara xamuñu woon ne yàlla moo bind géej moo benn moo bind suuf si si ñu boroom wax ci alquran ne wa awxaynaa ila muusa an idrib bi asaaka albaxra fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi al azim wa azlafna thumma al axarin wa anjaynaa muusa wa man maahu ajmain thumma axraqna al axarin inna fi dalika la aayatan wa ma kaana aktaruhum muminin mooy da ko ne sayet bii nga yor dóor ko ci géej gi rek te yatam woowu bokk na ci ay kéemtaanam moom Seydina Muusa ba mu ko ci dóoree dafa mel ni ab pont lii jëm ne lee jëm ne mu doon suuf si ne fandang bokk yi su géej ci kaw suuf si la nekk Seydina Muusa jaar ca ba jàll ba mu des tuuti ay quelques mètres firaw na ñëw rek dugg yàlla ne ko ah déedéet koo xam ne ñeewul sab awo du la may ñaare yow ni nga def ak sama wàcc kay moom mënuma mënu mënu mënuma fu foo jaar mu jaar fa nag daan ne Seydina sa wetam yaa moom Seydina Musaa ne aw roseet aw wetam firaw na dugg sa biir jeex mu jeex tàkk ba mu demee ba jaaxle nag nee na ko jéggal ma amantu annahu laa ilaha dem ba naan illallah waaye yàlla mu yàlla yàlla um na ko ca mu ne illa amanat bihi banu israil Touba quincaillerie générale mu ngi fii ci cité Kër Damel bu dee da ngeen yittewoo lépp lu jëm ci wàllu quincaillerie yi ñëw leen fii Touba quincaillerie générale mën ngeen leen a seeti tamit ca 84 ak ca 65 rue Ngalandou Diouf.